ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñoo ngi ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa xalif général kullu murit yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram di nuyu ak a siyaar mbooleem njabootu sëriñ tubaa xaadim rasul gépp di nuyu mbooleem doomi daara yi nga xam ne ñu ngi ci daara yi di jàng alquran ak sëriñ daara ya di jàngal ak seen seen waajur ya leen yóbbu ca daara ya bokk yi ñu am mbégte ci ñëw ànd ak yéen ci émission boo xam ne ñu ngi ko jagleel waa Grand Prix international bi nga xam ne sëriñ Abdou Khadir Niang ñu gën ko mën ci sëriñ Jili Niang moo koy taxawee lu toll ci ñetti at jàpp ñeenti at di jongantab alxuraan boo xam ni ñu ngi koy def ci weeru safar ngir mu bokk ci waajtaayu màggalug Tuuba bokk yi xam ngeen ne jongante boobu li gën a jafe mooy sëriñ ji li ñang ko taxawalee ànd ko ak bokk yi ndox ci ay at di ci jokkoo ak sëriñ Bachiru mu Cheikh Abdul Xaadir ren jii da cee def jéego yu am solo dem toog ak seex Muhammadul Muntaxa bi ñu toogee it sëriñ Muntaxa xam ngeen ne du dugg ci lu mu xamul mu toog ak boppam laajal boppam sëriñ Jiili liggéey bi ni mu demee enquête ko benn par benn ba sëriñ Jiili leeral ko lépp mu xamal ko na ko xaw ma woon ne noonu lay doxe su ma ko xamoon na gëni la ca war lépp def naa ko ci la nag jëlale boppam kaamil bépp yëkkati fanweeri million ak ñeent jaayante ko ci mbooleem li nga xam ne moom lañuy def loolu nag moom lañuy waajal moo tax ñu toog ak sëriñ Fallou Seck sama càmmoñ sëriñ sëriñ Bachirou mbay nekk sama wàllum ndijoor ñu jaajëfal baax sëriñ Dame Diané woykat ki nga xam ne moom lañu sëriñ Jili booleel sëñ Fallou xam naa damay njëkkante ak waxtu bàyyi la nga nuyoo sëñ Basiru nuyoo naa longoor longoor bu ngoon jot nag xam naa bu café amut ak i caaf ak yooyu dina xaw a waar sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala al ghurri al mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yawmi ddin suñ euh, sëñ Fallou la ñu leen nuyu di leen ziar di nuyu mboolem euh, auditeur yi ñuy déglu ak ñu ni seetaan ci télévision ak rajo Assalaamy TV di tàmbale suñu kàddu rek ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatu am tarixal muridiya suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lum lim naanal lislaam naanal ko yoon wi di yoon maamam bi su boroom àggale ko ñu ànd ko moom di sant bu baax tamit euh, sëñ Fallou ak ñi mu àndal ñëpp ci télévision bi di Assalaamy TV ak rajo bi ci dalal gi ñu dalal ñu wax ngir ñu war a waxtaanee Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ala alamee Karim moo teew fi nag en tant que coordinateur général uh-huh. uh, ci uh, grand prix bi uh-huh. ñu fas yéene amaana kooku sëñ Mouhamadou Bachir mbay mu bokk ci uh, lañu taxkim jury d'arbitrage bi ci la bokk jiite woon tamit bokkoon tamit ñu yoroon enregistrement yi ak test ci laat yi inscription yi candidat doon inscrire ci biir biir réew mi ak bitim réew yëpp commission bi ko yoroon moom moom ci la nekk ci la nekk waaye tamit bokk tamit ci commission bi nga xam ne ñoo yor arbitrage bi nga xam ne ñoo war a àtte candidat yi allah taala bu ñu doolee ba ca safar ba kon sëñ Fallou loolu kàddu yi ñu ubbee euh, incha jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Fallou hmm. kon Cheikh Madoul Basir hmm. yow it ñu bàyyi la nga nuyoo rek ñu daal di sóobu nag ci biir euh, waxtaan wi. aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa wa sahbihi ñoo ngi nuy mbokk yëpp leen ziyaare ci fii nga xam ne moom lañ nekk kàddu gi du fi bawoo di Salam FM di nuyu Sëriñ Fàllu Sekk mi nga xam ne mooy suñu kilifa moom lañ àndal ci liggéey bi ci grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di nuyu tamit sëriñ Fàllu mi nga xam ne moo ñu dalal ci fii nga xam ne mooy jataay bi fi lay amee di ko ndokkeel bu baax a baax te am mbégte ànd ak yéen jataay bi ci liggéey bi nga xam ne mooy grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul pour le Saint-Coran di dalal ñëpp di wax nañu ñun ñoo ngi bokk ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy jëmmal di ko def ngir wàccaayu màggalu Tuuba di ci dalal gan ñi ak timit di ci déglu candidat yi nga xam ne ñoo bokk ci wàllum njàng mi lépp nag ñu ànd ci ak suñu njiit suñu kilifa sëriñ Xaaru Jaxate macha allah ginnaaw loolu nag ñoo ngi sant ak gërëm bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir Mbacké mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Touba radiallahu taala anhu di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te def ci mu ak wér ba liggéey bi nga xam ne moom la fas yéene liggéey am ci yéene loolu rawatina mu jëm ci xam-xam sama borom defal ko ci lu kawe njortam rawatina jëwriñam ji nga xam ne ñoom la ci àndal mel ne sëriñ Bachiru Mbacke Abdul Qadir nga xam ne sëñ bi moom la jox daanaka lépp lu jëm ci wàllu waajtaayu màggal gi ñoo ngi koy nuyu bu baax macha allah di leen ñaanal sama borom yàggal leen fii di nuyu mbokk yëpp asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadel seen mbokk taalibe bi Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi ci seen rajo Assalaamy FM 99.0 fii ci euh, route des grandes mosquées jàkkaarloo ak Serigne Amdi Khady waaye lëkkaloo ak seen euh, télévision bi di Assalaamy TV ñu ngi bàyyi xel ci internet bi dina am ci YouTube bi ci Assalaamy TV ñu ngi seetaan ci réseau yi ñoom itam ñu ngi am ci Assalaamy TV mbokk yi. grand prix international la ñuy wax wala grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul grand prix boobu nag bala ñu ci ñëw dañuy dem rek ci ànd ci suñu régie fekk fa sëriñ Abibou Thiam mu tagal ñu sport bu njëkk bi nga xam ne moom la ñëw su ko defee nañu ñëw ak sëriñ Fallou Seck mu xamal ñu lan mooy grand prix Cheikh Ahmadou Bamba kon sëriñ Abibou Thiam mu nekk ci wàllu xarala gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yokk fan wi ak wér gi eh, nii ko gone yi ñaanee léegi ci suñ kanam yàlla na ko suñ borom defee noonu yi sa lépp suñ borom defal ñu ci kiimaan ci barkeb sëriñ bi ndax sak nekk njariñal diine ji la njariñal yoon wi la yàlla na yàgg lool te ànd ak wér ci barkeb sëriñ bi donc yëpp nga koy fas di ko ñaan damaa ànd ak nag sëriñ Jili Ñang sëriñ Fallou Seck sëriñ Mamadou Touré ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite ñooy jëwriñi jaaysatu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul al aalamiya lil Quraanil Kariim te ba xalaat bi bàyyi ko ci sëriñ Jili bi ñu jaaroon ci sëriñ Mouhamadul Xabaan mi nga xam ne moom nga dénk loolu mu ànd ak ñun ñëw fii sëñ du Fatah doomam ñëw na mi ngi nii ci yoon wi ñu ànd ak moom ba yoon bii muy ñetteelu yoon ñu di ko waajal bëgg rek jublu ci gën a wane liggéeyub sëriñ bi ci alquran Euh, falilahi alhamd mi ngi dox ci biir réew mi di dox ci bitim réew ren ji réew yu bari sàkku nañ cee bokk woo woo réew yi nga xam ne woo nañ leen ci nag ba yónnee leen seen paas ba ñu war a ñëw muy Algérie ak Niger waaye fii ba Bangladesh am na ñu ci bokk ñoo xam ne ci imtihaan yu njëkk yi euh, bokk nañ ci ñi jàll yaakaar nañ ne ñoom su leen ko seen man-man mayee danañ ñëw fekke si ko bi nga xamee nag jublu nañ ci sëriñ basirum Cheikh moom sëriñ basirum sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moom nga dénk liggéeyu màggal gi mu wax ne bis bu mel nii la cay baax mooy ñeenti fanu safar ñu di ko gàttandoo màggal gi kon jëmmi bis ba nga xam ne moom la ñuy def xew-xew ba eh, di ca dalal mbooloo mépp bis ba lay doon bu benn fanu safar jotee nag ñoom ñëpp ci la ñuy ñëw ci dëkk bi eh, ñu dalal leen fee ca daarul manaan ci kër sëriñ ba ñaari fan yooyu ñu ànd ak boroom xam-xam yi ñu natt leen ñeenteelu fanu safar nag ñu defal leen fa eh, déglu bu mag ba buñ ñu ñu jox leen fekk déglu nañ leen ba noppi xam bu ne ña jiitu dañ koo tënkit ci mokkal alquran tajwid ko waaye tafsir ko muy benn faran ñaareelu faran bi di mokkal alquran di ko tajwid waaw bu bu njëkk bi da jaay dañ ko def ñetti faran faran bi muy alxifsul kaamil maa tajwidi wa tafsir maa tajwidi di alxifsul kaamil maa tajwid euh, alfaru salis muy xifsu maa tayassar ngir xemmam loo gone yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi jàng te mokkalaguñ maa naak suuf ku ca mën a jàng njàng mu wér ñu neexal leen ñoom it neexal yu am solo loolee it sëriñ jii li am na lu mu ci taxawal muy kuréel goo xam ne day gën a taxaw ndax ni sëriñ xuraan euh, bi ràññi koo ko ci muy góorgóorlu ci fexe ba neexal ya nga xam ne danañ ko neexal ñooñu nga xam ne ñoo fay jiitu it jéem a méngoog loolu donte àqi sëriñ bi mënuñu koo dab waaye mbooloo mépp daal Euh, jataay boobu yaakaar naa ne sëñ Fallou jataay bu leer la ci ku dégg nag ni sëñ Xaadim waxee da daal di xam jublu euh, euh, jaayisa bi mu bëggoon a xam rek bu mu bëggoon a xam jëmm jaayisa bi rek mooy mooy lan ak lu ko tax a jógoo kañ la sosoog ñun ñoo ko seq mu bëggoon ci ñëw jërëjëf sëñ Fallou <coughs> maa ci kàddu gi xam naa soo ba léegi dama ñu ci Euh, lu am solo la wax ndax dara bu ñu koy waxtaanee waxtaan cosaan la mooy jiitu. Mhm. grand prix mu ngi xalaat bi mu ngi jublu ci deux mille dix huit booba maag Cheikh Abdou moom ñoo nekk Ndakaaru mhm. ñu gisoon ne euh, jamono adduna sépp yaa ngi fi dégg ay ay grand prix réewu islam moo dem rek kilifa kilifa ka fa nekk kilifa. Mhm. am na grand prix bu ñu ko tuddee boo xam ne. day màcc ca loola bu dee réew jullit yi grand prix jëm ci wàllu alquran jëm ci wàllu hadis lu seen da koy dégg euh, ñun gis na kon ku mel ne Seexul Xadim radiyallaahu anhu ci alquran ca na ko daan mokkale di ko mokkalloo di teral ña ko mokkal di ko jàngalu di ko jëfelu di daara mu amal ko fu nekk jaadu na mu am grand prix boo xam ne ci alxuraan lay jëm ñu tu mu aw turam ndax la koy def la koy def ca Maroc di ko def ca Dubai ñu koy tuddee ay kilifa yaakaar naa dara gën fee yey euh, sëñ bi fii ci Sénégal ñu gisoon na xëy na nag ay prix am na fi yoo xam ne yu alxuraan la waaye nag benn boo xam ne tur na tur yor na tur Seexul Ahmadu Bamba amu amu ko fi woon mm-hmm. loolu benn ñu gisoon tamit ne prix yi fi am yëpp national la Euh, am international rek amu ci. Mhm. moo tax ñu ne kon bu bu ko dee amal tamit ñu doon na doon bu yor bi tamit na doon loo xam lu international lay doon. yu mhm. ci woo adduna sépp mhm. ngir ñu mën a wane daraje euh, alxuraan daraje mu am ci Sénégal. place bi mu fi am. wàccuwaay bi mu fi am ñu xam ko. waaye xam tamit wàccuwaay yu ko sëñ bi sëñ bi joxoon. ci ak dundam ak ñi mu àndaloon. waaye tamit euh, ñu gis ne tamit ne. Euh, prix femmes yëpp gis na ne daanaka ci mokkal gi rek lay yem noonu. Hmm. ñu gis nañu bari bu mokkal alxuraan tamit day continuer seenum jàng sàkku xam-xam ba xam li alxuraan làmboo ci ay maanaa maanaam mën ko firi. Hmm. te loolu ba léegi amuñu gis ñu benn prix boo xam ne jël leen en charge. Hmm. ñu ne kon léegi bu ñu koy amal tamit dañ gis ne ndax dara boo koy amal da ngay fekk fu nit ñi yam nga tàmbalee foofa. waaye bu fekkee ne da ngay def lu nit ñi defaat daanaka njëriñ a waaye gis nañ ne daal. Euh, li tax mu am raison d'être daal mooy benn ki ñu ko tuddee ba léegi amagu doon grand prix boo xam ne moom moom yoroon te mu gën cee ku mën a doon nag. Mhm. Euh, ñaareel bi tamit euh, gis nañ ay yoo xam ne yoroon na ci am ci yenn prix te amu ci woon. Mhm. fexe bu dugg ko ci bi tamit ñetteel bi gis ne ña xira njàngin mi gën di jàng fii ci Sénégal mooy réwayaatu Warsh. parce mhm. que ñu ne bu ko amee tamit tey sëñ bi tamit moom la daan jàngalu daara yi kii yëpp loolu la daan jàngee. ñoo tamit ngir gën a mën a gën a. promouvoir gën a mën a tasaare gën a riwaaye boobu Grand Prix bu ñu ko amalee nan ko yemale ci waatu war boobu ngir ngir ndona la ndona la loo xam ne euh, gis na ne xañ na yeneen yeneen riwaayaat ñu ngi jëkk di jëkk di buuxante ak moom am na sax ñu yàpp ne ñu bëgg a jël place daanaka ci yenn yenn gox yu bare bare bëri tamit lu am solo loo xam ne ndona la man kon dañ ko yemal kii loolu kon yëpp daal mu dajee la am xalaat bi euh, ci leen bind projet bi bind ko ndax mbir mu ne da koy bind la mu war a lépp bind ko ñu ne kon ay bi lan te kin koy defal tamit ki ko fi nekkal mi ngi fi euh, nan dem sàkku ci ndigal gaaral ko ko su ko juboo ñu jàll su ko su ko jubul mhm. noonu lan ànd ak ki nga xam ne moom la dénk daara yi alxuraan yi muy sëñ Mahamadou Xabaan comme ko sëñ Xaat yi waxee léegi ñëw ci moom euh, biñ ko xamee xalaat bi dem li sunna bi la fi am ñu arrêté ñu kii woon waaye bi mu jàllee nag ci 2020 2020 ci leen ñëw sëñ bi gaaral ko ko Euh, ànd si moomul xaban mu rafet lu ko lool daan fi tëll maa ko ànd ak yéen xam jëkk nañu koy ànd ñun xam naa nag sëñ bi dee doon koo xam ne moom du xamantu bëggu di xamantu bëgg moo tax bu gisee laajaat mu laajaat bu dëgg dëgg gën ko leerlu mooy détails yi ko yi ko jox nii xeebu ko da ko soxla woon mm-hmm. détails yi mm-hmm. maanaam international beeg banqaas yeeg hmm? Hmm? ak financement beeg lépp da koo laaj yooyu hmm. la yooyu la yooyu la yooyu la doon leerlu waaye jëmi grand prix moom ban ko tàmbalee ba nëgë nii bi ñu ko ànd ñun amul benn édition boo xam ne lam ci joxe daan kenn joxe na ko ci loolu naka jëkk noonu la xëy na bii yoon la ma sa jëkk jëkk bii la jëkk-jëkk jël kaamil bépp noonu waaye bu ci nekk tamit daana fa jël saar ni ko ni ko ni ko tëralee noonu daana fa jël ay saar yu bare bare ci la joxee ndigal nag noonu noonu yi la la sosoo ñu wër kilifa kilifa yëpp jamono yooyu dem nañ kilifa daana war nañ kilifa ñi nga xam ne ñooy xalifa yi kër yi kër kër yëpp yëgal leen ko waaye yemuñ ci loolu yi dañoo jàpp ne grand bi euh, maanaam lu mu mën la pour mën a gën a jàppale kër diine yi ndax eh, national la international sous-national la ñi si bokk ñëpp du doon mur dong waaye ñëpp ci bokk loolu la kon luy boolee kër diine yëpp la te loolu dañ ko soxla mm-hmm. euh, diine ñi ñëpp ñëpp ñoo ko bokk yanu xoddeen di laaj yëgoo kon yaakaar naa lépp lu mën a boole kër diine yi lu am solo moo tax ñu ne ñu ñu def tamit ay ay ay kii ak ay délégation wër réew mépp yëgal ko kilifa diine yëpp ba euh, première édition bi sax kilifa yu bari ñoo ci ñëwoon moom bàyyi Baye Baye Niass Abdou Malick keroog ñëw na ca bu ko njëkkee amal euh, ñëw na ba keroog sax yàlla ki jël euh, benn fa bagaas bi hmm. kenn foofu la bokk. Mm-hmm. ci wàññi seen la bokk. Mm-hmm. keroog moom moo ko jox prix am. Mm-hmm. loolu lépp lay wane kon ne. Euh, lii moo waral grand prix bi. maanaam daal euh, maanaam dàkk bëggu sëñ bi. xam ngeen xam xir gum xiroon ci alxuraan. te mu lu bare bare ba ci ni ko waxee rek. ni ko waxee te foo foo ne euh, li mu koy jàngaloo. ci bis bi amul kenn ko jàngal ba muy ba muy fi nekk. ci zahir jamono ju nekk. ku ma ku ma ku ma saa yut alxuraan daal teel teraanga joo xam ne ñëpp daal lañ ñëwee. Mm-hmm. loolu nag ñu gis ne kon loolu jaadu na. Mm-hmm. ñu amal grand prix boo xam ne international lay doon. du turam ngir ñu mën cee jaaree ñu xam wàccaayu alxuraan ci Sénégal waaye xam wàccaayu alxuraan ci sëñ Seexul Xadim radiyallaahu anhu ak xet gi mu ci xeram. macha allah jërëjëf sëñ Fallou. yaakaar naa ne loolu leer na. Mm-hmm. ci li tax grand prix bee jóg. du caagee nañu dañoo lu xew mu jóg di ko defandoo dafa mel ne dafa fekk lu sëñ Tuubaa moom wala boog lu fi loo xam ne bu fi sëriñ bi nekkoon kenn du ko defal moo koy defal boppam ngeen jàpp ne kon yéen ci wutaati sëriñ bi ngeen ci daara ngeen ne lii daal ginnaaw bu fi sëriñ bi nekkoon def ko nañ ko defal mooy sëriñ bi moom bu fi nekkoon fu ñuy jàngee alxuraan ak ku ko mokkal ku mën a doon ak foo ko mën a mokkale bu la gisee teral la bu la déggee tax ndax moom daana jóg di déplacé wu di seeti ñooñu du ko ko ak jotam mayee du ko ko ak jotam mayetut fu mu leen dégg daana leen woluwu bu delluwaatee ci sañ Bay Jaxate xam nga ma ngay wax naan boo féetewoo di ko bindal mu woo di la dundal mm-hmm. boo koy jàngal di ko bindal muy sàkk ay murit yuy bay di la jox mm-hmm. kon kooku am na fu mu teg alxuraan mm-hmm. euh, waxal ak boppam it ne <clears throat> léppam alxuraan la kanzul kitaabu wal hadis wal adab laa jamhu fiddatin wala ñu bëree bëree bëri waxit rafiqi kitaabullahi wal Moustapha nabi euh, dundam gépp itam ci alxuraan la ko jeexal ba ba am ci ba cër boo xam ne kenn amu ko kon yaakaar naa ci grand prix bi su fekkoon ne dañ koy def rek national dañu yaakaar ne kon alxuraan yi senegal képp la ci alxuraan moom ji nekk fii ak ja nekk Niger ak ja nekk Bangladesh ak ja nekk Pakistan ñooyam jenn alxuraan ji la min sóoratul baqara ila sóoratul naas ñoom ñëpp ñoo ko bokk benn wenn benn alxuraan ji la ci kenn la wàcc waaw kon yaakaar naa ne alxuraan jee ñuy jàng Bangladesh ak ji ñuy jàng Touba ñoo yam jenn alxuraan jee mm-hmm. kon ku ci jongante pour bëgg a xam wane ne sëñ Touba kat bu waxee ne alxuraan alxuraan maa ko moom ja nekk Inde ak ja nekk Chine ak nekk Japon jëpp alxuraan ju mën a doon maa ko moom mm-hmm. kon buñ ci def ab jongante dañoo war a indi mbir yëpp ñu bokk daje mm-hmm. ba mbë bu mbërum tubaa daanee ñoo xam ne mbërum tubaa kat sëñ mbërum sëñ tubaa daan na ndax alxuraan moom sëñ tubaa lim lim damay wax ne toujours ne li mu jàngal yàlla kaamilub alxuraan bi wàccut jànguñu ko ci jamonoy Muhammad jam wàcc jànguñu ko ginnaaw yonent bi amul kenn benn doomu aadama bu mas a taxaw bu ëllëgee mu a taxaw kaamil bi taxaw mu ko yow lu ma la jàngalu ko la ko jàngalul alxuraan ko yow képp li nga ma jàngalu yow yaa ma ko jàngalul yaakaar naa fi nga ma tegit yow dong yaa ma fa teg ni nga ma defit yow dong ko def waaw loolu kon yaakaar naa ne leer na ci kon sëñ sëñ sëñ sëñ fa sëñ euh, Basiru mhm. dañu ci ginnaaw da ngeen ko rombale réew mi mhm. rombale ko Afrique mhm. def ko mu nekk international ci biir international boobu bu ngeen ci bëggee dugal ak maandu te loo xamante ne bii jongante bi am at lay doon nan ngeen doon tànnee mbër yi ak bu ngeen leen tànnee ñan lañ la doon saytu ba xam ne ñi ñoo war a dem ñoo qualifié final. ñi ñii lañ des kii qualifié quart de finale ñee seizième de finale ñee huitième de finale. ba ñeen nga xam ne ñoo ñu war a nekk final bi la quatre safara. macha allah jërëjëf Serigne Fallou ñoo ngi lay nuyuwaat baax di la ziar di nuyu Serigne Fallou Seck baax macha allah woon tamit di rafetlu kàddu yi leeral gi mu leeral am na solo lool ci jaayise bi ni muy doxee. yaakaar naa képp ku ko dégg danga xam sabab bi lu ko waral mbir la moo xam ne mu waroon a am la bu yàgg waaye nag lenn lu dafa am ci yàlla ku mu koy dogalee ni mu ko dogalee ci ñoom mook Sëriñ Abdul Xaadir ji li ñu wax ñu waxtaan ci ba déggoo ci ba gis na lu war a mën a am la mm-hmm. te mu nekk loo xam ne tamit solo gi foo ko takk rek weesu na ko macha allah ba niñ ci amee ndigalu sëriñ bi ngir taxawal ko yàlla dogal ren mooy ñetteel at mi nga xam ne moom lañ ko war a def incha allahu taala moo war a doon ñaari fan ak ñetteelu fan ci weeru safar ñeenteelu fan bi incha allah di war a doon cérémonie bi nga xam ne ci nañu xool candidat yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ñu war leen a neexal jaayisa bi nag comme ni nga ko xamee année bu ne bu jàllee bu màggal gi jàllee rek comme daaw bi mu weesoo rek lañ tàmbale nag def programme ni ñu def ba incha allah fas yéene koo def mu daal di doon mu amaat loolu tax bi mu jàllee ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey sëriñ Jileek ak sëriñ Abdul Qadir ak sëriñ Qadir Jaxate ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi lañu taxkim lañ gaaw rek daal waxtaan kan lañ war a mën a tàmbaliwaat mbindu mi ak kan lañ ko war a mën a tëj ci lañ waxtaan ñu gis ne kan mbind mi war nañ koo mën a tàmbali balaa yàgg ndi képp koo xam ne bokk na ci ñu defar istimaara boo xam ne day war wane képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci concours bi rek ci yoon wii ngay jaar ngir mën cee bindu waaw concours bi ne comme ni nga ko xamee ñetti xaaj la ku bokk ci xaaj sàngam dañ ñaan képp koo xam ne dëkk nga ci réew mi mën ngaa bind wala nga nekk foofu foo mënti rek mën ngaa bind boo bind da nga koy yónnee ñetti xaaj yi mooy benn bi ñi mooy ñi ma ko alxuraanu karim mën koo tafsir nga xam ne ñoom dañ seen at day tàmbalee gën ngaa néew juróom at jëm ba ñeent fukki nga xam ne kenn ku ci ku am ci digg bokk ci diggante war mën nga caa bokk beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne dañoo mokk alxuraanul karim rek di ko doog mokkal mokkal gu rafet mooy gone xifdul te maa tajwid ñoom tamit dañ leen a àppal ay at yoo xam ne ci lañ mën a bokkee mooy dañuy seeni at day tàmbalee juróom-ñaar at jëm ba ñaar fukki at gën gaa bari duñ ko romb beneen xaaj bi des mooy gone yi nga xam ne dañuy doog a fer di tàmbale dal jàng ci di ci di ci góorgóorlu xam ne mooy xale yi nga xam ne am nañ juróom ñaar at jëm ba fukki at nga xam ne fa lañ leen yemale ñetti catégorie yooyu moo am ci concours bi biñ ko tisaaree nag macha allah law na ci réew mi yëpp ba fenn fu ne mbind mi doon na fa bàyyi ko nit ñi di bindu kenn ku ne di yëg ne kat yëf yi yitteel na ko ak solo gi mu am ñëpp di bindu kenn ku ne nag booy bindu danañ la wax na la faru boo mën a bokk bu dee da ngaa bokk xibsu kalima at tajwid wa tafsir dañ ñaal da ngay def ñaari vidéo vidéo bi benn bi da nga ciy jàng alquranul karim lum néew néew mat ñaari minute ba ñett boo jàngee ba noppi li nga jàngoon nga daal koy tafsir firi ko leeral ko ci làkku arab wala ci làkku wolof yi boo ko defee ñu ne la ba noppee nga yónnee ko ci numéro boobu bu nga bokk ñu ne la da ngay def ñaari video yoo xam ne benn bi da nga ciy jàng alquranul karim bu njëkk bi ci téere kaw bi beneen bi nga jàng ci alquranul karim ci téere suuf bi ba noppee nga yónnee ko ci yi nga xam ne moom la ñu réservé beneen far bi ci topp mooy xifzu kan ma xifzu ma tayassara nga xam ne fukki xisib la ñoom dañ ñaan leen kenn ku ne na def ñaari vidéo moom tamit benn bi ci juróomi njëkk yi benn bi ci juróomi mujj yi boo noppee nga yónnee ko ci eh, numéro bi nga xam ne mooy réservoir vidéo yi biñ defee noonu tàmbale woon ko le première avril ba weeru mars lañ ko tàmbaloon ba fin avril ne képp koo xam ne mu ngi tàmbalee le premier avril bala 30 le premier mars la 30 ba bala 30 avril mooy képp kuy bind daal ci diggante boobu mën nga cee bind bu xasee ba jeexal dañ koy tëj noonu lañ ko ubbee nit ñëpp di bindu di bind bi ñu demee ba nga xam ne nag yëf yi man na nag ñu daal koy tëj daal ci jokkoog ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi mooy lañ ñoo taxkim bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo ci njiital sëriñ Qaadu Jaxate ñu woo leen ñu daje fii ci kër sëriñ Touba gi nga xam ne moo nekk fii ci jumaa ji woo leen comme que ay vidéo la nga xam ne kandaay duñ teew dañ koy def ci ay kale xaaj ko ay pàcc pàcc bu ne ñu def ci faro bi nga xam ne ñii moom la ñu war a déglu ñu war a déglu tafsir ñu jox leen tafsir ñi nga xam ne ñoo war a déglu xifzu kalima at tajwid ñu jox leen ko ñi nga xam ne ñoo war a déglu ashra ahzab ñu jox te ñoom ñëpp kenn ku ne da ngay am mas mustawa la sa morom déglu da nga ko mën a déglu waaye lépp nag liggéey bi moo demee noonu ñu jox leen ko ñu déglu ko xam ne xëy nañ yenn ci tàmbalee huit heures ba vingt ci ngoon ñuy déglu vidéo yi kenn ko da ngay indi vidéo jàkkaarloo muy liggéey boo xam ne daanaka moo gën a jafe sax xale bi toog di jàng ndax xale bi toog di jàng léegi-léegi mën naa wax dara bu doon tey ji mata doomu aadama nga nekk ci leneen am loola raw waaye bu dee vidéo yi moom da nga yëg ne ñoom lu ñu déggut dañuy anéraat vidéo bi déglu ko ba mu leer ci seen nopp ñu doog a jàll waaw xam noonu lañ ko def ba liggéey bi mat bi ñu àggee ba ngoon fara bu ne ñu xool ñañ déglu ñëpp ñu xool noté seeni point xool ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoom ñoo ci ëppale ay point ñu daal leen di génnele fara bu ne ñu daal ci génnee 10 personnes daal leen teg fara xifzil kaamil 10 personnes fara tafsir bi 10 personnes ashra ahzab bi 10 personnes ñu boole leen mu nekk 30 ak ñi nga xam ne yàlla dogal ne jaayisa bi moo bind ñoom invitation yónnee leen ko boppam ñu war a ñëw nga xam ne jaayisa bi dafa warlu woon ne international waaye lépp loo xam ne day doog a tàmbale dañ koy tàmbalee ci ak ndànk ba kere ngay am li nga bëgg rawatina nag jaayise boo xam ne dañ koo ibbi defal ko Serigne Touba murid yi yëpp kenn ku ne am sañ-sañu jël sa alal def ci kenn ku ne am sañ-sañu ñëw mën a bokk ak liggéey bi loolu boo koy doog a tàmbali force danga koy teg ci yoon woo xam ni xam-xam lay demee waaye ak loo mën a bëgg-bëgg ak loo bëgg mu àgg fenn fi da ngay doxee ndànk ba kere nga àgg foofu moo tax jaayise bi dafa tàmbali at mu ne dana fexe lu mu néew néew mu organiser mu invité benn benn pays benn benn réew wala ñaar ñu ñëw ngir fekkee li nga xam ne mooy final bi ñoom ne bu ñëwee ñoom dañuy bokk direct ci final bi ngir lan ngir mën a jonganteeg kenn ku ne nag boo ñëwee yaay xool faron bu la neex nga dugg ca bu dee xisdu kaal maa tijul nga bokk ca bu dee faron bokk ca yàlla dogal na ne at yëpp noonu lañ def bu ñu ñëwee tamit danañ leen dalal fii nga xam ne mooy ci kër Sëriñ Tuubaa gi waaw teewul bind bi ñu doon def noonu sax bitum réew bind nañ bu baax a baax ñoom ndax yàlla daa dogal bi jàll nga xam ne moo nekkoon deuxième édition bi ki ko jëloon dafa dëkk Maroc bi yàlla dogal bi mu demee tamit ndam loolu nga xam ne waa Touba defal ndam li nga xam ne am na ko Touba dafa nekk loo xam ne moom dafa rëy ci moom ba mu àggee mu jox ko dayo ba mu toll waa réew ma ànd ceeg moom ba tax mu jox foofu ampilir boo xam ne jaayse bi am na ko fa wax dëgg ñu bari xam nañ ko ci ba tax na ren ñoom seen concours bi ñu doon def yónnee nañ invitation boo xam ne jaayse Cheikhul Khadim lañ ko yónnee ci seen loxo lañ ko teg ngir lan ngir ay candidat mën a ñëw foofu loolu defoon nañ ko ren ngir ay candidat yu mën a ñëw kon loolu day wane ne liggéey bi amoon na ko solo ren jii ñuy waxee yow rek bari na ñoo xam ne bind woon nañ Nigeria Bangladesh Tchad ah ak réew yoo xam ne ñëpp ngir mën a bokk nga xam ne am na ñoo xam ne jàll nañ am na ñoo xam ne tamit jàlluñu ndaxte lim bi ñu soxla moom saa yu matee diis rek ñi si des ñëpp seeni not lu mu baax baax hmm. dañ leen di téye ba yàlla dogal incha allah ba beneen yoon noonu lañ koy def ak ñoom incha allah ba bi nga xam ne incha allahu taala moom lañ war a dajee le premier safar ba le 2 la 3 le 4 incha allah fii nga xam ne mooy kër Serigne Touba gi ñoom ñëpp ñu dajal leen fa teral leen àndaat ak ñoom comme ci yoon boobu ñu jaaree ñu jàkkaarloog lañ nekk taxkim bi nag bi nga xam ne day dañuy toog ñu jàkkaarloog ñoom kenn ku ne ñu laaj la la nga soxla lañ soxla woo ci yow xam buñ noppee tamit xoolaat ñi nga xam ne ñu jiitu ci ñoom la 4 incha allahu taala ñu daal leen di jox seen i neexal. incha allahu taala. macha allah macha allah sëñ Bachirou dafa mel ne yëf yi ak maandute am na ci. Mhm, macha allah waaye it nag ak xamit am na ci. Mhm. dañuy wax ne ak bëgg bu àndute ko xam mm, daanaka jëf du mën a am du baax. Mhm. kon lépp loo mën a bëgg na ko xam ba pare. day mbirit dañuy wax ne bul ko jox sa xarit jox ko xaritam. kon yaakaar naa ne yëf yi day laaj ki ci ki koy dund. Euh, xam ko ba noppi bëgg ko def ci taam mu mën koo kii yaakaar naa ne buñ xoolee ni ngeen ko ni ngeen ko tëralee mhm. lépp teg na ci yoon waaye day mel ne sëñ Fallou laata muy ñëw ak sëñ Dame Diané euh, buñ tuddee Grande Péniche Ahmed ba tudd ay neexal mhm. neexal yooyu naka lay tuddee ak fan ngeen di jëlee neexal yi mhm. dëgg la jërëjëf kon bala maa ñëw kii ma mat lu tuuti li mu doon wax nii rek euh, li expérience boobu ñu def nag vidéo yi bokk na ci tamit bokk na ci nouveauté yi nga xam na ñun mm-hmm. grand prix moo ko njëkk andi fii. Mm-hmm. yaakaar naa yi fi amoon. Mm-hmm. dañ naan def ay délégation di wër réew yi waaye ni ñu ko defee nii bi yoon. Euh, def ko bu njëkk bi nga xam ne du nekk présentiel. ki candidat bi du teew. ndax li soxla foofu rek mooy. njàngin bi qualité njàngin bi qualité bi. qualité bi lañ bëgg natt foofu. nga xam foofu ki koy ki koy atte dana dana ko jàkku ba baax ba xam mhm. kii këlita mhm. njàng mi dëgg dëgg dëgg jar waaye mokkal gi mhm. mokkal gi mi ngi feeñe ci mu ngi feeñe ci euh, bu ñëwee bis bu ñëwee ba kii foofu lay feeñe moo tax mu toll nii candidat euh, bu ñëwee le deux le trois ndax jàpp na ne maanaam kan nattu ci am njàng ba njàng ma aw yoon ban jël ko ca dix première yi kooku bu wóoluwutoon bopp ci mokkal du ñemee bokk ci déedéet leer na ko dana ñëw toog mm-hmm. ci kanam siri bi waaw mm-hmm. te du ah. xool kaamil du xool dara ñu natt mm-hmm. kii bu njëkk bi élimination njëkk yi jëru teewaay bi nan xool qualité njàng mi rek su ko defee xam xale bi ki ci bokk bu ñëwee ñu doog xool ba xam xafis moo tax ñu moo am moo am Euh, ñaari ñaari phase yooyu. macha allah noonu mm. loolu mooy jël kër jël mm-hmm. li nga laaj kii bi mooy. maanaam euh, neexal yi. ne waaw ah, neexal yi. Mm-hmm. Euh, yàlla dogal nag xalaat bi ci ñun la jógee ñu garal ko ki nga xam ne mooy kilifa kilifa gi mu jubbu ko. Mm-hmm. ñu ne nag ki koy defal moom am na lépp Seexul Xadim radiyallaahu anhu ndax moo waxoon ne xasaa'inu bi fatihat lépp fatihat magasin suñu bi dama ko ubbil ñu ne ko ah, ah, ubbil nañ uh, grand prix boo xam ne moo ko moom ñu ko ci ay taalibe di ko ci wuutu maanaam di ko taxawee loo xam ne moo ko doon taxawee nag ba mu fi nekk jàpp nañ ne uh, loola lu mën a jàll la lu mën a wéy la mm-hmm. moo tax ñu delloo ko ci taalibe yëpp ndax ñu ko ñu ko ubbi ay sëñ daara rek lan mm-hmm. yoo xam ne doonuñu ay borom xaalis mm-hmm. bokkut ak xam ne prix yi xamoon nga xam ne xëy na mm-hmm. da doon ko man boppam xam ne ñu ne li koy li koy kii ak jaayante lay doon ak i addiya jaayante la ak i addiya moo tax ñu ne euh, loolu nag ginnaaw bi lañ ko xalaat rek ci tàmbali bi ñu ne comme mbir mu ne dañ ko wutal aw yoon nan na lay comme saare alxuraan yi téeméer la fukk ak ñeent ñun léegi nan def at nan def adde yi juróom-benn fukki junni trois cent mille ñu ne comme ne ku bëgg a wuutu sëñ bi ci saaru sangam nga jaayanteel saaru yi mooy doon trois cent mille mooy doon a nga xam ne taalibe bi dana mën ne ma daal saaru sangam saaru bàqar bi wuutu naa ci sëñ bi jaayanteel jaayanteel ko trois cent mille francs noonu ko defee su ko defee loolu fa jógee nag loolu la ñu dajale moom euh, la ñu jox candidat yi nga xam ne su ko defee bu kaamil bi jeexee tamit ñu baat benn kaamil rek du mu toll bu ñu doon ba am juróomi kaamil mu toll rek. Mm-hmm. noonu la ko joxee ndax lépp xam na ne suñ moom moom fi nekk ku ma saa jox alxuraan rek ku ma saa jox dafa yaakaar da ngay ñëpp nan mm-hmm. la macha allah moo tax kon prix mm-hmm. duñ ko àpp wutul amul àpp xam yoogu rek am na ku ne wax naan xanaa prix bi duñ ko fixé ñu neen ñu noon mënuñu koo fixé ndax loo xam ne la koy financé ci taalibe lay jógee nu mu ñëwee doon la koy financé moo tax prix yi doon doon doon lu ñu fixé waaw ah, mën na day day évoluer rek mën na évoluer mhm. euh, lu mu ñëwee rek noonu noonu noonu lay noonu lay prix ñëwee moo tax kon li koy financé daal taalibe yi la mhm. kon kon at mu ne la ca ñëw du génn at ma du xanaa lu weesu xañ na xañ na fonctionnement waaw fonctionnement loo xam ne xëy na fonctionnement waaye lu dul loolu lu loolu xëy na am na chaise bu ñu chaise bu ñu jël fi la wax dañ ko war di fay mhm, waaw waaw am na ko am na ko fa nekk koo xam ne boo fa nekk waaw mooy permanent ba kooku ñu war a fay si la lu loola rek. Mhm. dañ ko delluwaat ci ci grand prix. macha allah waaw noonu la lay demee léegi su ko nag. Mhm. Euh, danaan kii nga mën a jaayante saar wi. Mhm. ñooñu ñooy ñooy nga xam ñooy jën grand prix bi. ku mën loolu tamit addiye mu ngi tàmbalee ci dërëm ba fa waaye mën a yem rek ba ba ba ba ba trois cent mille rek loolu rek addiye la ko tudde loolu nag la ñuy dajale chaque année doo kii su ko defee euh, ki nga xam ne ku joxe ku la si xamal Muntaxa ñaar day dem mu yëkk ci dañuy xool lam tolloo ci saar ñu bindal ko ko mm-hmm. euh, te ji bi ñëwee bi noonu la ko wane mu bég ci lool mm-hmm. na ko yaa jëloon surat Hasir ba euh, yaakaar naa sara xam kii suba surat Ndox xam surat Ndox waaw na ko dund waaw ah, mu xool ko nii waaw mu xool ko da bég lool mm-hmm. euh, bi mu koy yónnee lan lan loolu ni ko ni ko laaj yi noonu la ko laajawaat ñu mm-hmm. leeralaat ko mm-hmm. moo tax mu mun a mu ne na jaayante si kaamil bi bi yoon na jaayante kaamil bi bi yoon waaw loolu yi lañuy wax su ko defee nag dañuy jàpp ne euh, ñun en tant que ay taalibe moom euh, sëñ bi def na ko ngir moom noonu la toll suñ bi mu alam la yor mm-hmm. waaye nag day bëgg toujours nag taalibe yi di ko ci di ci di ko di mm-hmm. jaayante nga kaamil bi yëpp jaayante kaamil bi waaw mm-hmm. macha allah ku jox jaayante kaamil bi noonu la def suñ bi noonu la def tey moom moom moom moom ci mi ngi doog a am nag joxe na suñ mur suñ suñ suñ Modou Kara jaayante bi 28 saar Euh, mu tolloog arab Touba. macha allah noonu la ko noonu noonu tamit la ko suñu jan Moxtaar Jan noonu yëpp wax dëgg am na kilifa yoo xam ne mm-hmm. ak suñu boobu kabe mm-hmm. ay dañuy jaanati ma fukki saar rek mm-hmm. mel noonu waaye nag kaani kaani bépp moom ñu ngi doog a am ci Cheikh Mamadou Moustapha macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou euh, kon sëñ Daam yaakaar naa ne yaa ngi topp jataay bi ñaaral bi itam yaa ngi yëngatu ci wàllu communication

ak Serigne Mouhamadou Bachir ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo kilifa yu mag mm-hmm. man seenum dong rek bu leen di doxal ay yoon leen rawatina ci wàllu télévision yi ak mm-hmm. ak yu ni mel mm-hmm. moo tax moo ñëwoon rek di leen gunge si waaye ni nga ko waxee ni nga ko tàmbalee ci cëslaay yi xam ne liggéeyu Serigne Touba la ba noppi nag doon ñaan Serigne Touba bu nangu boo xoolee ci fànn yi nga xam ne si moom lañ ko séddale. waxuma la nag dajale nit ñi di leen taratu mhm. ci ñu jàng alquran loolu moom ci lañ fekk sëñ bi. dëgg la mhm. ndax wax ko léegi. Mhm. ku ko boo féetewoo di ko bindal. mu féetewoo di la dundal. boo koy bayal di la dund di ko bindal mu sàkk ñuy bay moo ko wax. kon ku loolu moom ci lañ ko fekk. waaye jëmmi euh, niñ ko doxalee nii. ndax sëñ bi da koo ñaanoon bu yàgg yàgg. bay bi nga xam ne mooy bàkku jaayisa bi mooy wajaal bi jaahin man taqaa xayaati riayatan quraani mhm. riaya boo xoolee ci làkku téléphone yi yaakaar naa mooy sponsor yi mhm. mhm. ne mooy ki nga xam ne mooy gunge ñi ñi nekk dëgg la di leen sàmm mooy sponsoram waaw mooy sponsor sil ayaati nag waaw riayatal quraani sil ayaati kon nga xam ne kon loolu kenn ku nekk wuutu gi ngay wuutu mm-hmm. sëriñ bi ci wenn saar ni ko sëriñ Fallou waxee mm-hmm. sëriñ Tuubaa moo ko ñaanoon mm-hmm. moom bi boo xam si dafa am tafsir fii ci Sénégal loolu tamit sëñ bi moo ko ñaanoon wahab liya tafsira wa tilaawa wahab liya tajwida wal xalaawa nga jàpp na moom dong lay waxal mu ne wa jumlatil wa jumlatil ubbaadi wa zuhaadi mhm. mhm. ne kon mboolem eh, loolu ni ko yittewoo noonu la bëggee waaye nag bu demee ba agsi fii mhm. taxawal grand prix boo xam si grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba la far'u ba jiitu nekk far'u tafsir mm-hmm. ma tajwid mm-hmm. ma ma far'u oh. xisnu kaamil ma tajwid wa tafsir dañuy xam ne mm-hmm. ñaan gaa yegg si rek boo riggee ci mbartal la ku teg loxo mu dem ku teg loxo mu dem beneen bi des mooy boo jàngatee indi gi ñu ko indi ci biir màggal gi am na fu sëriñ bi waxee ne nafaytal aza an yi wali soxta matlabi wala budda min shukri zikri wa tajwidi nga ma samay lor ñoddil ma samay bëgg-bëgg gi mooy lan wa habliya tafsira wa habliya tajwida hmm. wa tilaawa hmm. yooyu a bëgg-bëgg hmm. léegi nag fa laa budda min shikri mën ta ñàkk ma di la sant ci lan ci zikri bi zikri ci téere bi wa tajwid ak di ko ñu koy tajwid kon buñ ko indee ci biir kaar safar bi dañu xam ne lépp lu sëñ bi waajaloon la daa ñëw a yegg si kon noonu la tëddee beneen bi ci mujj nag mooy ci wàllu niñ ko organiser ci wàllu ci wàllu euh, addiya yi ak jaayante yi dañu mm-hmm. xam ne sëriñ bi moom mm-hmm. alxuraan moom li mu ci def ak li ci financé mm-hmm. ñun ñëpp dañuy jéem rek waaye kenn mënatu ko sëriñ taxaa dafa toll ca dayoo boobu ba sëñ bi tolloon dem ca xaaya ba kenn mënu koo jéggi waaye kenn mënu ko woon àgg lu ko jiitu moom rek moo ko mënoon ndax Serigne Touba cërub sëñ bi la cërub sëñ bi la kenn mënu fa woon mënoon nañoo góorgóorlu waaye mënuñoo ñu àgg foofu mhm. amoon nañu ko man tamit mhm. waaye seen maqaama ak seen daraja ak seen rawxaat yi mënta yegg foofu mhm. parce que sëñ bee ko jago moom rek moo ko jago Serigne Moussa Ka ba mu koy marsi yàlla na déglul ma jooy la alquran waayam ju mag jabaraña da koo defoon ak kerkeraan di dem di des si duñu wax ca lay gisee nga njëma mbeef moo di kënoo ngay noti seef gaalam nga muy jàll mbindéef ca bis ba kenn bul tala sex di ne moo ku la dee def ci taax mm-hmm. di sotti la koloñ yu baax mm-hmm. te di la teg ci lal yu baax di dem fanaani ci di dem fanaan ci néegi ñax mm-hmm. moo ku la dee di jëndlu moo ku la dee jàngulu moo ku la dee di bindlu bu ñuy nelaw mu di la wax ba àgg ci di na muy kuy dee di jàpp ay junneem di def ci yow mbaate gédéem na def la koomu jamonoom ku la ku ko fi xam na ma ko wax def la koomum jamono. def la koomum jamono. tey yaakaar naa ayu gis mm-hmm. nañ ne koomum jamono moom. mooy alquran mooy ay ay nit ñoo xam si wax nañu wax yu rëy rëy rëy sax. Mm-hmm. ci ala koom bari mi ngi gis. Mm-hmm. sëriñ bi def ko ci kon day gis ne te def la koomum jamono. moom nag amul jamono jamono jépp jamono. waaw moom sëñ bu wax di azaman waaw mooy mooy azaman. muy def piiru jamono rek. kon loolu moom ni ko sëñ waxee. ñu jël matuwaay yëpp nag. ngir lii ñu yëkkatee Serigne Touba. Mhm. mu nekk lu ñoŋ. Mhm. lu am qualité. Mhm. lu professionnel. lu rafet. ba noppi lu sell. ñu jël ci suñu kéemtalaay kàttan. ñoom sëñ Fall lu ñuy ku leen gis ko dina yàq seen xar kanam. xam ne lépp lu ñuy tàbbi lu sell la. dëgg la ñoom sëñ Basiiru ñii. lépp lu ñuy tàbbi lu sell la. buñ ca nekkoon ci napp na bi sax bu ci Serigne Mountakha. bëggalee boppam rek. ñu mm. seen ndaw na nëx mm. nëx. daal di seet kon yàlla nañ ko yàlla defal tawfiq ñu ngi déglu ci résumé bi ak tënk gi macha allah waaye daal <laughs> tabaarakallah <laughs> jërëjëf sëñ Dame Diané yaakaar naa eh, résumé bi mënutoon a ñàkk ndax macha allah mm-hmm. waaye loo ko loo cee xool ne li sëriñ Abdou Lahad waxoon ne mm-hmm. soo déggee sëriñ bi dëgg mm-hmm. sa àdduna de daal lijjanti ko ndax ne loo bëgg lu ne fekk sëñ bi ñaan ko yàlla da ngay fekk fa mu ko ñaana rek mhm. nga tàmbulee foofu mhm. ay wax ne mi ngi tàmbulee ci bi sëñ bi ne wa maskani salim min al fujaari mhm. laa xam ne ku fi andi ay police li nga bëgg ñu defal la ko mu dem jëli biir kàddu gendarmerie andi ba mu ne wam nun xalaa ahli bi maa in jaari laa xam ne ku gas forage da am ndox ma daal taxaw temm ci gas ay forage ci dëkk bi bu du doon dëkk bu am ndox <laughs> bu nit ñi wax nii ma leen ñaari ndox yi faaw ñu xëttaloo ndax sëriñ bi moom du ñaan yàlla mu di ko mayantu mhm. boo ñaanee rek faaw faaw mu jéggi dayoo ndax Touba moom kenn du ko mën a tàggaleeg ndox mhm. xanaa seetal ndox bi fi muy jaar feeg nit ñi fi nit ñi fi ñuy jaar mhm. waaw euh, sëñ Bas dafay mel ne comme waxtu bi waxtu bi mi ngi jàtt si euh, dégg nañ kii bi programme nag ndax gis naa Cheikh Mahamadul Bachir muy wax ne ba ngeen ñëwee ci moom moo leen tànnal kat safara mhm. daañu wax ne boo gisee ma tànn kat safara nag damaa gis sëriñ bi bindal boppam ci xaraj ci yow ma sabti mhm. zamina azar mhm. li xidmatil muxtaari fi sahri safar euh, rabian safar loolu daa mel la sëriñ bi ma tànnal leen ñeenti fani safara xifdul kaamil maa tajwid farxu xifdu ashrata ahzaabi lahqaaf ba naasi wërngal bi mujj ci jonganteb alquranul karim bi ñu jagleel sëriñ Tuubaa xaadimu rasul mu war a doon ñaari fan ba ñeenti fan safar dëppoog le 8 août 2024 ca la ñuy jox ña jël raw gàddu ya seeni neexal muy amee ci ndigal lu sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke xalifa général de Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci kilifteef ak teewaayu sëriñ Basiru Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Qadir mi jiite comité d'organisation màggalu Touba ci teewaayu sëriñ Mouhamadul Qabbaan mi jiite daare alquraan yi ci Touba ak ko wër ak ci teewaayu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma mi jiite a jàmbaari alquraan yi bési tegtal concours jaaisatu acheikhu ahmadu bamba xaadimu rasul alaalamiya lil quraanil karim ñaari fan ba ñeenti fan ci weeru safar dëppoog le 8 août 2024 fii ci Touba kër Serigne Touba gi ci darul mannaan anse garage woo nañ ci ñëw bàyyiwuñu wu bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ngir yeneen ni leeral woote leen ci 77 551 23 13 wala 75 551 23 13 jaaisatu acheikhu ahmadu bamba xaadimu rasul al aalamiya lil quraan al karim liggéeyal sëriñ Tuubaa ci al quraan bu raxul dara macha allah macha allah jërëjëf sëriñ Fallou gis nga liggéey boobu di ab woote boo xam ne jëm na ci bis bi mm-hmm. rafetlu kàddu sëñ Dame yooyu di wax ne sëriñ Tuubaa moom lépp lu ko waaye di liggéeyal rek na nga xam ne ak ñaan gum ñaan la mm-hmm. boo ci góorgóorloo yàlla dana la ci fekk si li sëñ Fallou wax na ne bi bi ñuy ibbi tàmbali jaayse bi Serigne Ndiiri laaj bokk na ci lañ ko laajoon journaliste yi fu ñuy jëlee xaalis bi nga xam ne mooy financé. Mhm. la ma waxoon ki ñu koy am na ko. Mhm. waaw xam naa ñoom danañ jaaxle ndax ku lu loo xam ne da nga koy taxawal. Mhm. ñu lay laaj budget boo bëgg nga wax ne nangami million ngay am te amul fenn foo ko yaakaare lu dul ci nit ñi ñu ko génne loolu mënta weesu. gëm guñ gëm ne Serigne Touba li mu doon liggéey yàlla nangu na ko te muy lu am waaw kon nag ñu gën a am xel ak dal bu baax a baax di wax ne li suñ daam wax nit ñëpp war nañoo gën a yittewoo jaayisa bi ndaxte ñun ñi nga xam ne ñoo féetewoo ci dalal gan ñi xëy na yàgg naa am ci dëkk bi waaye daaw bi ñu dalalee gan ñi rek ku mel ne kii nga xam ne yàlla dogal na moo jëloon première pharaon bi te mooy marocain bi ñu koy wax euh, nu mu sax euh, fàtte naa tur ba bi mm. xam-xam Hamza Soobu yàlla dogal na biñ ñëwee man mi nga xam ne man maa nekk ak ñoom ci wàllu dalag ak yooyu génn naa ànd ak moom jël oto dugg ci biir dëkk bi bi muy romb moom li mu gën a laaj dëkk bi da laaj ban dëkk la wax naa li bokk nañ ma ne leen bii nag dafa am ñu ko soos ki ko sos mooy Serigne Touba radiyallahu taala ñu ne ma ba xam menn moom kese ma ko sos moo wax ma ne leen menn moom rek moo ko soos bi mu fiy ñëw menn moom rek moo àndoon di wër ba agsi fii mel ne loo xam ne boromam da koo wan mu nekk fi te leen dong moo taxoon mu sos ko te mooy jàng ak jàngale nga xam ne jamono la xam nga ne biiru bi day bëri ci dëkk bi oto yi dem ak dikk daje nag bàyyi faale sax jamono boobu ñoo ngi sekkati kanaal yi ñoo ngi tax lépp ndeysaan mu naan ma ñii moom lu ñuy def ni lan la ma ne ko dëkk bi bu ñuy waaj màggal gi dañuy set setal dëkk bi ñoom ñi dañu mun a ma laaj ñii ku leen fay ma ne ko ñi kenn fayu leen li ñuy def dañ koy def li wajhillaahi taala mu daan ne ma loolu moom munta nekk moom nit te mën a def teg yenn coono yu boppam te bu noppee du ci fayu dara bokk na ci loolu tamit bi ñu demaate ba ci jumaa ji ci wàllu dalal gan ñi rek nga xam ne yi nga xam dañ koy jàngoonte mooy wane ne bis bi lu mat a def la ngir ne lu gaaw la ci xam ne sëriñ Touba xam nga nit ñi kenn ku ne la nga am bari na waaye bi moom ñëpp ko bokk te Serigne Touba da cee liggéey boo xam ne kenn liggéeyu ko mm-hmm. biñ demee ci jumaa ji nee na ma jumaa ju toll nii kan moo ko taxawal ma ne ko xalifa ba ko taxawal mu ne ma fu mu xaalis bi ma ne ko murit yëpp ñooy boole di joxe seen i addi ñu taxawal ko biñ jógee ci biir mu ki fiy jiite ñi fi jàngal xam-xam ku leen di fay ma ne ko kenn fayu leen ñoom ñëpp sëñ bi leen gàddu mu ne ma lii moom mënut a nekk ab liggéey boo xam ne kenn nit a ko yor te lu dul état da ko attan. da ko dér kenn la. bokk na ci liggéey sax ba bi ñu demee ci daaray kaamil xam daaray kaamil moom boo duggee damaa jëlee bala ngaa tijji e, kàggu yeeg yi di xool. Mm-hmm. waaye abiyaat yi ñuy bind rek moom bi muy teen di xool rek dafay yéemu. daana ma kan moo bind lii ma ne ko xanaa Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu moom mi nga xam ne moom lañ tuddee jaayise bi. bi ñu jógee ci biir jaayise mu ne ma kii lim bind nekkul loo xam ne dafa xaj ci dunduk doomu aadama wala yu yàlla boo xam ne yàlla loo ko indi woon ngir mu liggéey lim doon liggéey. Mhm. bokk na ci la mu wax. waaw daa dem na sax daanaka lii gars di wax daanu kat keroog dégg naa naar bi wax ko ma kii ndax nit la. li bu dee moom rek moo bind lii ndax nit la mhm. ndax lii xëjul ci ak dundu nit goo xam ne war naa mën a dund téeméeri at wala nangam mhm. rawatina ku ñu ñaan ay 67 ans la 63 ans yooyu wërta mën a xàcc ak dund ma ne ko ah mi ngi noonu de buy xool xaraf bu gin am bëy bi sax bu gis na foofu daan na ma eh, ci mawaaxi bu eh, salaatu si di mu tudde sax waaw salaatu sitta bi ma dexi sitta saatihi batta ma aktisaay mu xool ko daan kii lii ma du ma ne ko lii rek moo nekkoon dundam xasida yi boo ko xoolee yenn yi ay salaatu ala nabi la ko def yenn yi nag tagg borom bi subhaanahu wa taala def dong la ko def nga xam ne loolu bokk na ci liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp war nañ ko yóbbaale macha allah waaw ñëpp war nañoo tax liggéey bi nga xam ne mooy jaayise bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax rawatina nag bi nga xamee ne Cheikh Mountakhal Bachir mi nga xam ne moo fi tegal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul ñu koy ñaanal baax mu yàgg fi loolu te wér daan nañ ci def alalam waaye ren bu ñu gisee ni mu ci def mooy liggéey bi ni ñu ko ko yaatalee leeral ko ko mm-hmm. leeral gi àgg ba ci wax ko kat ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew ñu war leen téye ci dëkk bi ay fan yoo xam ne jaayise moo leen yor ak furu yi teqalikoo yi nga xam ne def nañ ko ko loolu sëñ Muntaxa ku xam ak bëgg xam-xamam xam ne loolu daan na ko yitteel waaye ren na la ko gën a xam ren moom bu doon jaayisa bi yëgoon na ko am lu mu ci daan laaj ren moom jeex na takk moom xam na lépp te nag ab yoon la woo xam ne tegtal na képp koo xam ne jaayisa bi moo la ñor nga daal ci jaar ci yoon bi ndaxte ab soñño moom li ci gën a gaaw muy jëf mm-hmm. ki nga xam ne day wax naan def leen nangam mm-hmm. loo xam ne dañ ñaan saara wu ne trois cent mille moom mu jëlub kaamil jàngal ko boppam ni ko suñ mun ni ko suñ suñ jili waxee mhm. suñ mën taxaa ibneb kaamil boppam tàmbali ko jàng ko ba mu ne jinatam naas xat mu tëjaat mhm. moom noonu la sëñ bi def teg loolu aw yoon la woo xam ne mhm. loolu rek moo mën a tax jaayise bi fi ñu ko bëgg mu àgg fa mu daal fay àgg moo tax fan yi nga xam ne bu yàlla dogalee kër sëñ Touba gii yi nga xam ne moo nekk ci garaasu su bi daarul mën naan fa la ñu sëriñ Bachirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Qadir booleeg sëriñ Abdul Qadir Ñang bi nga xam ne moom moo yor liggéey bi. Mhm. moom sëñ Maamun. Mhm. nga xam ne moom bu ñëwee dañuy jox benn immeuble ci immeuble mag yi nga xam ne moom la fi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyoon nga xam ne fan yooyu yëpp ci la ñuy nekk muy liggéey boo xam ne macha allah kandaay bu ñëwee kenn ku ne dañ leen jox néegam te foofu kenn ku ne xam ne liggéey bi ñu ko liggéey mu ngi nekk cinq étoiles lañ ko liggéey liggéey bu foofu liggéey mucc ayib la. Mhm. kandaay bu ñëwee kenn ku ne la jox sa néeg nga nekk. jaayisa moo lay gàddul sa dund ba keroog ngay dellu li ngay soxla woon lépp moo la koy jox ba boo ñu delluwaat candidat yi lum néew néew kenn ku ne ñu ñëw ñëpp dana leen jox paas ñu delluwaat fa ñu jóge woon damaa jël na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xam ne teew mu nekk liggéey boo xam ne xale yi nga xam ne rawatina faru bu ndaw bi yi nga xam ne dañ koy def sax da gis xale yi nga xam ne dañuy ñëw da gis xale yoo xam ndeysaan nekkinu fa ak toppatoo beex dañuy wax seen sëñ daare naan lu tee ñu ibbi daara ji ci biir kër sëñ Tuubaa gi ñoom dañuy jàpp de bu yëf jàllee ñoom foofu noonu lay neexee ba tax ñu naan seen sëñ daare nañ ñëw ibbi daara ji foofu ci kër sëñ Tuubaa gi ndax toppatoo bu jaar yoon boo xam ne wax dëgg yàlla danañ ko def te loolu nag dara mayu ko lu dul nag taalibay sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo boole seeni fukki dërëm ak seeni ba doole def 300 ba ci nga xam ne ren wane na aw yoon bu mat sëkk xam ne kenn warul tara jaay jaayiseel Cheikhul Khadim bi mooy lan ngir yoon wi Serigne Touba Serigne Touba Cheikh Mountakhal Bachir def kon liggéey boobu liggéey la boo xam ne bu am solo la ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ànd ak kanday wax dëgg gis yoon woo xam ne lii ëppoon naa ñàkk def ëppoon naa ñàkk a def mm-hmm. ki ma ñi ma àndoon tamit keneen ki daaw ndeysaan mi jóge ba ci jumaa ji ndeysaan moom àgg gis kurus yi mu yëf yi yéem ko lool ba kurus yi ne ma nu may def ba am ci kurus jënd yóbbaale ko waaw jënd nga xam ne kuris yi moom kerek danoon xool kurus yi gën a rafet di seer ma ne ko nag xam naa kurus yi seer yi moom yi benn benn waaye bu ma ko waxee mu ne moom jekk na pour jënd ko moom moom jëmmi boppam rek na pour jëndal boppam bi ma ko waxee ma ne ko mu jël yi mu bëgg daan na bii ak bii ak laa bëgg daal di génn fekk mi nga yor euro ma ne ko nu mu toll mu xool ma génne jël ci dara jox ko la ci mottali ko ñëw daal di wax jaayse bi daan na moom jël na fa nangam nga xam ne loolu lépp ci ay teraanga yoo loo xam ne mhm. liggéey bi moo ko wane te bu dul woon alxuraanu karim doo xam nooy invité ay candidat ci leneen rawatina nag ba mu nekk jaayse boo xam ne dañu ko tuddee Serigne Touba Cheikhul Khadim radiallahu taala kon nag muy nekk liggéey boo xam ne liggéey bi am solo la xam ne murid yi liggéey bi yeex naa taxaw waaye nag wërta nekk liggéey bu des ginnaaw mukk ba ilaa yawmi diin dafa nekk loo xam ne yàlla nañ toog ba téeméeri at ñu koy feete di ko di ko bàyyi xel di ko def chaque année comme ni ñu ko defee rawatina liggéey boo xam ne nag ñi ko séq ñëpp kenn ku ne ñëpp a ci nag ñëpp waaw ñëpp koo koo xalaat ci dëkk bi rek dañuy ñëw bokk ak ñun liggéey bi lañ ñu tax kim bi ñiy àtte rek mooy wane ne boo gisee xale yi nga xam ne yàlla day dogal ñu jige fii ci Sénégal dem ci ay concours di gaña lañu ñu tax ki ñi nga xam ne ñooy àtte ñii mooy ñenn ñi nga xam ne ñooy àtte gone yi ñuy dem Dakar di jël ay première di dem mm. yeneen réew di jël première ñu ñu man li ñuy def lañ te tamit duñ ci maye dara waaw xale bu toog ak lu mel dañ ci ànd li ñuy def ragal yàlla lañ ci àndal luñ xam-xam luñ xam sëb sëñ daara boo toogee yoon wañu war a jaar dong la ñu war a jaar yow mooy li ne fi tax a toog mooy dañ lay déglu ñu jox la ab këyit boo xam ne ci lañ lay notteel lépp loo def ci ab safa lu bokk teg lu bokk ci njàng mi ñu noteel ko bu ñu noppee ñu xool ña cee jiitu ñu ñu ñu daal leen ndokkeel kon loolu macha allahu taala liggéey bi jaayse bi def na ko macha allah te xam nga sax wax mooy kii ku mel ne Mouhamed Gaye mi nga xam ne yàlla dogal na daaw mu jëloon dem Arabie Saoudia gañe woon fa première prix boobu moom bi muy dem grand prix Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba moo ko génne grand prix Cheikhul Khadim bi moo ko génne yàlla dogal na at mooma bi muy dem moom dañu dañ dama leen a ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite woon na leen kat dañu fi am invitation boo xam ne Malaisie la jëm te faaw ñu xool ku dem booba mënoon naa xool ki jël premier ma tànn ko waaye dañu leen a woowaat woo ci tax na taxkeem ñu ñëw dajal leen ci benn kër sëñ daara boo jàmbaare macha allah si Mourou Bousso ñoo ngi bu baax bu ñëw toog ñu defal leen ab segg ñoom bi ñu leen defal ab segg yàlla dogal Mouhamed Gueye jël première ndate eh, kii nu mu tuddati Ndeye Zeynabu Ngom daal di jël deuxième. ñu ne leen ke léegi kon Ndeye Zeynabu kon yàlla dogal na la kon Mouhamed Gaye mooy dem Malaisie lay dem bi biñ leen ko defalee ba ci suba rek invitation ñëw bu jugee Arabie Saoudite. ñu ne leen kat yàlla dogal na ne kat invitation ñu ne bu jugee Arabie Saoudite te ñaar leen tànnoon. Malaisie xamal nañu ne Mouhamed Gaye fa nga waroon dem waaye xamal nañu ne ki war a dem Malaisie jigéen lay doon te góor lay àndal te ñoom eh, am nañ beneen tànn nañ ko góor ki ba noppi. kon Mouhamed Gueye yow dootoo mën a dem Malaisie léegi Arabie Saoudite ngay mën a dem ki jëloon deuxième léegi ñu bàyyi ko mu dem Malaisie nga xam ne ñoom sax xale bi doon na xaw a sikki sa kawam lu tax ñu tànn ko ba fële waaye ki ñu ne ko léegi demal rek ginnaaw bi ñu waxtaanee ba mu dë dëpp ñu yebal ko mu dem Saoudia ku jigéen ki ñu jox ko ne ko demal Malaisie yàlla dogal na ñoom ñaar bi ñu leen tànn Mouhamed Gueye mooy jëloon première ci concours ci ci tànn bi ñu leen tànn ndey Zeyna bu jëloon deuxième billaahi léegi ñoom ñaar ñëpp kenn ko ne li nga jëloon bi ñu lay tànn ba nga demee fa nga fa dem moom nga jël ndey Zeyna ba mu demee foofu mu concours international moo jël deuxième Malaisie Mouhamed Gaye ba mu demee moo jël première waaw kon jël première te loolu wax dëgg yàlla day wane ne liggéey bi man ba mu eh, ci duggee rek eh. keroog ba may jokkoo ak sin ji dama ko wax dama ne ko lii de man dafa nekk loo xam ne sama borom laa koy seedal bu ma amoon alal kenn du ko ci njëkk ndax dama ko yàgg xalaat waaye xamul fu may jaar mhm. boo ma gisee nga woote ko rek man alhamdulilah ñëw naa lu ma ci fekk rek gil na waaw kon liggéey boobu damay gëm ne liggéey bi Serigne Touba la rawatina ne mhm. mooy tool bi nga xam ne Serigne Touba moo ko wax ne képp ku ko bëgg a bayal rek nekkal ci téere loolu ñoo ngi ciy gën a rafet lu njort di wax ñëpp ne liggéey bi ñu ko séq yéene ju rafet dong lañ ci am te mooy liggéeyal Serigne Touba ak téere bi gën a jëm ca kanam ak tamit ñu gën a xam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moom mooy kan ak la moo ko taxoon a jug. waaw jërëjëf macha allah. jërëjëf wax na ko. lu su mën a teg baaraam la rek waaye am na yu bëri yoo xam ne mi ngi ci kanam di ñëw. Mhm, incha allah taala ndax léeg-léeg tamit euh, invitation yi. Mhm. concours yi di mhm. ñëw. nit di dem. fekk itam di dellusiwaat ak ay place yu suufee fekk na ne dafa jaarul ci segg bi. dëggantaan waaye ni mu ko waxee nii. bu demee tey ku dem nag wax dëgg yàlla ba ñeekuwaat boo jëlee ndam ni ngay siggalee sama réew boo jëlee. lu dul ndam noonu la sa noonu la gàcce dëgg la dëgg la tey sëñ bi moom dafa jiitu ci alxuraan fi génnee mm-hmm. ñu ne Tuubaa la jóge dafa war a jiitu mm-hmm. dafa jiitu dem ñëw kenn teeruwu la waaw dafa jiitu ci bëgg mm-hmm. dafa jiitu ci bëgg jiitu ci takk ci kon képp koo xam ne sii yow yaa ngi koy teewal ak fu mu a doon danga war a jiitu la ngay jiitu nag doonut xar baax wala euh, kiimaan yu muy def ci yow waaye aw yoon la wu muy teg yu ñu war a teg nun taalibe yi ni ñu ko tëralee ci jaayisa bi nga war cee jaar ndax ba mu ñëwee dafa jàng alquran di ko bind di ko tagg di ko bind lu di ko jàng loolu mooy yoon wi ñu tëral kon nag suñu bëggee suñuy ñoñ buñ demee di jël ay ndam yu kawe yi jiitu ni sëriñ jiitoo leen xàllal yoon xàllal yoon mhm. euh, bii bi ma doon wax léegi ci ne nang ma may euh, tajwid bijtihaadi mhm. am fu muy waxee bijtihaadi mhm. wax lii tajwid bijtihaadi farlu gi nga xam ne si moo waral nun ñu am suñu lajnatu tahkim boo xam ne si lu ñu àtte bu ñu demee bitim réew kenn di ko tiri mm-hmm. mooy bijtihaad mm-hmm. farlu googu noonu farlu googu noonu ñii nekk ci lajnatu tahkim bi yëpp jàngewuñ ci anam gi ñuy àtte mm-hmm. seenuk farlu ak sëriñ bi da koo ñaan moo waral ñoom ñuy jóge fii di dem ba mbuubeen mhm. ñenn ñi jóge fii di dem ba Dakar ñenn ñi amatuñ alxamis ak àllarba ndax àllarba ak alxamis dañuy jàng mhm. Basiiru mii day jàng man mhm. mii damay jàng ñeneen ak ñeneen ñi jeexal nañ téere yu am na ay ijaazaat yu kawee kawee te ñi ko amee nag boo doon wàññi ci adduna bépp muy sëñ Mahmoud Hassan Bousso suñu Abdou bu génnee fii ñu ñu naw lañ ci alquran ñoo ijaazaat ñi nga xam ne Mm-hmm. kon concours bi lépp local mm-hmm. allahu akbar lépp local bu dee ci euh, financement bi mm-hmm. mu tijjee ko financé dee ci xalaat yi mu tijjee ko xalaat bu dee ci lañ tax kim ñoo xalaat bu dee ci dëkk bi jële fii lañ koy defee sur le plan a muy nii mu ko waxee ni boo demee Dubaay ñoom seen concours yi bu paree durant ñuy xaar am na fan yoo xam ne si dañuy jël candidat yóbbu leen Mhm, xool dëkk bi xam li xew mhm. loolu kon dañ ko war a boolewaale te yaakaar naa sëñ Fallou mhm. li ñu yore coordination bi ñu fexe ba tànn ay yoo dañuy jël candidat ñi ay étranger am na bërëb yoo xam ne bu dee ñoom dong duñ fa mën a dem yóbbu leen ci Serigne Mountakha ñu leen xalifa Daaru Xuddoos ñu leen xalifa Ndiène xalifa Daaru Salaam kenn ku ñu xamal leen ñu def benn petit boo xam ne si macha allah mm-hmm. tabarakallah mm-hmm. macha allah macha allah ma allah macha allah bismillah sëñ Fallu mm-hmm. xam naa ne waxtu wi jot nañu bàyyi ko kàddu yi kàddu yu mujj ñu tàggatoo ci jotaay bi xam naa di di a santaat baax na sëñ Fallu ci ni nga di idaara jalsa bi macha allah di yokk samay kàddu ci dëggal li Cheikh Mouhamed Bachir wa ak Cheikh ci qualité Euh, kii jury d'arbitrage bi. Mhm. ñu nga xam ne ñooy àtte xale yi. Mhm. <coughs> état bi nga xam ne xam ne lépp luy am da koy xam ren bi nga xam ne ñu ngi amal concours international. Mhm. du chef de l'état <coughs> dañoo dañoo woo grand grand prix laaj leen ñu proposer am membre. ci seen membre jury. kon ñu doon <coughs> ñu doon kii ñu doon arbitré. grand prix chef de l'état boobu am na ñun. kenn ci koo xam ne ci ñoo ko proposé. Mhm. Euh, mu ànd ko ñoom ci loolu. Mhm. Mhm. te ñu ma ko seqaloon nag ñaar ñi ngeen tudd nii. si si Hassane Bosom yi. nga xam ne moom ñi raw ci àdduna ci wàllu njàng. incha allah ñoom la bokkaloon toog loolu day wan rek kon. Euh, qualité ñi nga xam ne muy jëm xale yoo xam ne seen at bëriwul waaye ak sell ak jub moom ak xam la ñuy def moom. Euh, loolu moom kenn kenn kenn werante wu ko. macha allah moo tax moo amul benn résultat boo xam ne dana génn te ñëpp xam ne lii lu jaarul la. Mm-hmm. loolu la xam naa li ñuy jeexal rek mooy euh, di la gën a xamal ne comme comme ni ko suñu waxee rek financement bi moom euh, talib rek ñoo koy def. Mm-hmm. di ko tàmbalee si ñun. ñu ko ñu ko organisé ku ci nekk am na loo sasa loo xam ne. Mm-hmm. chaque année da nga ko da ko joxe. tàmbale ko ndax la way bay sa way tànk. si Abdou Xaadir Ñang sak sak sak daan moom mi nga suñ jili mi ko kii sak année daan na jaayante ñaari saar yoo xam ne moo koy sa mhm. ñu si topp la xam ne eh, kii dool demul noonu waaye sak année tamit ku nga am mhm. ko def mhm. noonu itamit lañuy soññee suñu mbokk taalibe yëpp ci ñu jàpp ci financement bi li ko suñu saa jaxatee wax rek maanaam grand prix Cheikh Khadim Sall warut yées benn grand prix déedéet déedéet moom loolu loolu lay wax toujours. Mm-hmm. man loolu noonu moom lii moo tax bu ñu waxee waxee fixé naan kenn du fixé. Mm-hmm. ndax suñu du ko joxe. Mm-hmm. la dem numéro joxe. Euh, loolu mooy numéro orange bi. macha allah weef bi. Euh, am na numéro compte boo xam tamit lépp lu fi ñëw tamit. Euh, mboolem ku ne ci liggéey bi rek. Mhm. am nga ci aperçu. Mhm. lu dugg lu nekk daan wax ñaataa dugg lan ci finance daan wax ñaata ci financé la mhm. fekkee am na lu des ñoo xam ne ñaata moo am na liggéey amul benn loo xam ne li ci lënt ñu lépp. macha allah loolu daal mooy li mooy li mooy loolu laa bëggoon a jaxale. Euh, di santaan mbokk yëpp. di seet tam ci kàddu xam naa. jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou. Mm-hmm. Euh, jërëjëf itam sëñ Bachirou. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ Dame Diané. Mm-hmm. jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu jàkkaarloo ñoom ñu dañuy seetaan ci seen télévision bi di Assalaamy TV euh, ñu jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ñu déglu ci rajo bi bisimilah. waaw sëriñ Fallou bala nga tàggoo xam nga macha allah di sant bu baax tamit sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom Chaybu. ndaxte grand prix bi xam nga ne bi ko ginnaaw bi suñ jiite xalaatee ne dañ ko war a def kat ab daaira boo xam ne ñoom ñoo koy gàddu nga xam ne day tax liggéey bi niñ ko bëggee mu gën a ñoŋ bokk na ci ki nga xam ne moom ab kuréel goo xam ne dañ koy defal goo xam ne ngir ngir daayira ngir mu bañ a taxaw nga xam ne du nekk loo xam ne dañ koy def tey ren bu ne ñuy xalaat ña ñoo ko war a defaat nga xam ne day nekk kuréel goo xam ne ñoom ñoo koy kuréel googu yàlla dogal ne taxaw na muy soppee Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rasoul bi ñu àggee sëñ Abdou Samad moom mooy ki nga xam ne moom moo wax mu mu nangoo bokk ci. jaayisa bi. nangoo eh, bokk ci daayira ba te nangoo ba kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom tamit ko lu baax la. di a def. bindal ko boppam jël suratu zumar daan ne man tànn naa suratu zumar ndax Sëriñ Tuubaa ni ma la wax moom. Mhm. ndeysaan keroog bi ñu àggee ci a toog moom waaye jàngal na fa alxuraan. di leen nuyu ci addi jox ma ko te loolu wax dëgg yàlla ci kilifa yi ñu àndal ndax mag loolu day wane ne jaayisa bi dox gi nga xam ne dox kon noonu ci woo mbokk yëpp daal ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax te gën ko bàyyi incha allah nga xam ne mooy jawriñ ji mi ngi noonu daal képp euh, lu waay am rek ko xeeb moo xam muy dërëm wala eh, muy ñaar dërëm. Serigne Abdoul Fatah mu Serigne incha allah. mooy numéro Serigne boobu nga xam ne moom mooy. Mouhamadul Xabaan 551 23 Serigne Xaadim la sant baax eh, Serigne Jili Kousa Serigne Abdoul Moutalib mooy Salam TV ak rajo bi nga xam ne mooy Salami FM. 90 Mame Mor Touré eh, ñaan sama borom def ci barke yi nga xam ne yëpp ñooy jëwriñu liggéey bi ñëwoon di siyaare si di yeesalaat tey fedd li noonee ñu la ko waxe woon liggéeyub sëriñ bi la boo xam ne amul benn jéego boo xam ne danañ ko ci defee lu dul ci digal ba mu jaaree ca sama ju baax ja sëriñ Modou Xabaan jàll ca Cheikh Mahamadul Muntaxa ba mu doon digal ca yow lañ ñëw ba mu dikkee it nga gàttandu ko téye ko bu baax yëkkati ko dugal ko ci liggéey bu rëy bii nga xam ne ku ci xis boobu sam xel dal muy gàttandu ko màggal gi ba bés bu rëy bii mu am yaa ko tànnoon muy rabiu safar loolu it gën a dolliwaat suñu xel bu baax a baax gën a gën a dalal gën koo dalal ñu di la ci sant bu baax ndax waaye boobee nga xam ne nag boobee ak léegi mosoo caa dellu gannaaw boole ñoo kër sëñ Tuubaa ca daal mën gas nga di fa dal fuñ fi jëm it bunt yëpp nga jiitu ci mu ba ci biir communication xel bu baax a baax gën a dalal gën koo dalal ñu di la ci sant bu baax taxawaay boobee nga xam ne nag boobee ak léegi mosoo caa dellu gannaaw. boole ñoo kër sëñ Tuubaa gee ca daarul mën naan gan ña di fa dal fépp fuñ fi jëbit gunt yëpp nga jiitu ci mu ubbiku ba ci biir communication magal bi te loolu di loo xam ne lu rëy rëy na loo xam ne ak fay sax taxu caa mën a